hectares yoo xamante ne nii dañ ko dafa mënul mënul mënul mënul dem noonu ci zéro parce que bu ñu jëlee force fonds Covid yi rek li ci dem ci ay xaalis te kenn xamul fu mu jaar loolu il faut ñu leeral ko euh, am na loo xamante ne nii euh, ci Sénégal te ñi ko doon wax sax da gis ñoo xamante da ngay gis koo xamante ne nii lu yàggul dara euh, mënuñoon wax ni kii millionaire la ci lu ci diir gu gàtt mu nekk ci milliardaire ci koo xamante ne nii amul benn revenu boo xamante ne moo lay wan nekk ne kii milliards yi mu yor ci revenu yi la war a la jaar wala ci fii la jaar yor na milliard parce que juste dafa am fu mu féete wala dafa am ku mu jegeek yu demee noonu loolu il faut que ñu saytuwaat ko bu baax a baax a baax ci dëkk yu mag yi c'est comme ça que ça se dañuy sax bu ñu gisee ni dëgg bu ñu la gisee ci lu ci laps de temps nga yor ay xaalis xaalis gu bëri dafa am ñoo xam te ne dañuy ñëw saytu xaalis googu fan nga ko jëlee fi mu jaar loolu c'est c'est mooy principe bi nga xam ne mooy moo moo moo am fépp léegi nag li ci li ci am solo mooy ñi nga xam ne xëy na peut-être dañoo yaakaar ne wala dañoo jàpp ne dañoo am ay milliards parce que dañ ko jaaralewul ci yoon mais c'est l'occasion pour que ñu jaaraleen ci yoon pour ñu mën a xam seeni milliards yooyu fan lañ ko jëlee bu fekkee loo xamante ne ni askan bi lu ñu moom la ñoom ñu jëlee ko ci askan bi euh, na nguur gi joxe ay mécanisme wala teg ay mécanisme yoo xamante ne nii dinañu mën a récupérer xaalis googu alal googu delloo waat ko ci askan bi loolu c'est c'est une demande te mooy li nga xam ne nii moo war nguuru Sénégal loolu lañ leen te sax loolu lañ leen fit loolu bokk na ci mission yi nga xam ne nii moom la leen Séné nguuru seen euh, moom la leen sénégalais yi dénk à que alal gi nga xam ne moom la al askan bi moom ñu mën ko delloo waaye aussi tamit jéem a xoo def nu euh, nu ñuy gën a jàppale euh, ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñiy liggéey aussi tamit ndax def attention ci ñi nga xam ne ni xëy na peut-être mën nañ leen a tuumaal wala ñu wax leen wala xalaatal leen loo xamante ne bokkul ak li nga xam ne ni loolu la loo loolu moo am. Mhm. Euh, euh, premier ministre nag génnee na benn terme boo xamante ne nii <laughs> man pour man terme boobu euh, jaru woon sax mu koy mu koy génnee. Mhm. lu lu lu lu lu ci ci li muy def jarul mu koy justifier parce que mooy li nga xam ne nii loolu lañ leen. loolu mhm. lañ leen sant te loolu la ñuy xaar ci ñoom. bu kenn nag xalaat ne xëy na peut-être. Euh, mbirum euh, politique laak yu demee noonu déedéet mm-hmm. mën na bañ a nekk mbirum politique mm-hmm. ndax am na foo xamante ne fuñ buñ fa yeggee mm-hmm. euh, li nga xam ne mooy moomeelu askan bi am na ay mécanisme yoo xamante ne buñ ci buñ ko defaree rek ku ci nekk di nga mën a xam fi nga xam ne li nga xam ne loolu nga moom ak fi nga war a mën a taxaw pour mën a récupérer li nga xam ne nii loolu mooy li ñu bokk ñun ñëpp donc man je je pense je je ne je pense que c'est un discours boo xamante ne nii ferme te effectivement il faut de la fermeté pour mm-hmm. ci yenn discours yi mm-hmm. te euh, day tax rek wala sax day gëna conforté conforter li nga mm-hmm. xam ne ni mooy euh, euh, liggéeyu gouvernement bu premier ministre Ousmane Sonko. ci jub jubal jubanti. voilà ci jub jubal jubanti ba Baye Ablaye bu ñu revenir ci discours bi nga xam ne moom.